asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ayuha almushaahiduuna alkiram yéen mbokki téléspectateur u Safina TV seen mbokk seen xarit imam Aboubacar Mbodj moo ñëw ak yéen ci seen émission makaarimul axlaaq muy jikko teddi di len nuyu di len ziar di len dokkel di len balu haq di ñew ak yeen ci waxtan bo xamne ne koy teunk rek ci li borom bi tabaraka wa taala wax ne wa ma jinna wal insa illa liya'budun borom bi mag ñuy xamal ne binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaamu ma awma lu may sàkku ci ñoom ci lu may lekk wala lu may naan wala luñ may jox wala luñ may defal lenn rek leen leen sant mooy ñu jaamu ma jaamu googu borom bi tabaaraka wa taala wax ñu ne wa ma umiru illa li yacbudu llaha muxlisiina lahu ddiina wa yuqimu salaata wa yutu zakata wa dalika diinul qayima man yàlla digaluma leen yéen nit lu dul ngeen jaamuma rek te itam nag ngeen sellal jaamu gi mooy lépp loo ciy def rekk nga def ko li wajhillaahi tabaaraka wa taala yàlla rekk tax doo ci dëktalu doo ci njistalu doo ko ci bokkaaleeg lenn walla kenn ndax naka lañ ko ci jaamoo mu ne ngeen di saxal julli nag tey joxe azaka loolu de mooy diine ju sell ju wér ju jub ji bu ko defee xam nga ku wax jaamu yàlla rekk il faut nga wax itam xam borom bi tabaaraku taala wax ak ñi nga xamne ñoom am nañ xamne wa dhakir fa inna dhikra tanfaul muminin yow mi xam na ngay fatali ndax fatali ke dana jariñ ñi nga xamne gëm nañ yàlla waye ñi nga xamne ño xam buñu fatali wul wala biñuy fatali yow aksi wul ci yow du tax rek nga toog ne xamuma yàlla ne fas alu ahla zikri in kuntum laa taalamuun yéen ñi nga xam ne xamu leen kët na ngeen laaj ñi xam ndax ngeen xam ndax boo demee ca laxdari yu danga ci gis ne du dagan mukk ci mukkallaf mu jëf benn jëf te xamul atteb yàlla ca loola kon ab jullit bu xamee dafa war a xamal ki xamul ndax yàlla ma ngi wax di tagg ñi nga xam ne maanaam ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi tamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar yéen de yéenay xeet bi gën ci xeet yi ma masa wàcce ndax dangeen di digle lu baax te jiitu ci di tere lu bon te jiitu ci bàyyi ki kon yonent bi itam sallallahu alayhi wa wax ne balligu anni walaw aaya nangeen ma di jottulil sama mission bi donte ko nag benn aaya la kon doom aadama yàlla moo ko teral teraanga jooju mooy bi mu ko bindee rek muy nit ndax moo ne wala qad karram naa bani aadam ñun ñoo teral doomu aadama tàggatal la lépp lu nekk ci suuf si ak même jaww ji ak géej gi sax yàlla terale na ko doomu aadama kon nag pour ñu mériter teraanga jooju il faut ñu laaj baat yi li ma xuliq na yàlla tontu na la ba pare ndax nee na la lu tax ma bind la daal mooy pour nga jaamu ma jaamu yàlla mooy nga def li nga xam ne moom la la sant bàyyi lim la tere waaw kon boo nee lan moo tax yàlla bind ma rekk sa tontu mooy ngir nga jaamu ko kon ku ko jaamuwul rekk maanaam mission bi taxoon mu bind la yow yàq nga ko naka lañuy ñuy jaamoo yàlla mooy ci ni nga xam ne noonu la ko yàlla jàngale nim ko bëgge ak nim ko jàngale yonent bi sallallahu alayhi mu jàngale ñu ko jaamu yàlla googu lan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nett li ci xadiisul quds ne sama jaam day mënumaa defal lu gën loo xam ne lu ma gën a bëgg ci li ma farataal ci moom kon lépp loo mën a defal yàlla la ko ci gënal mooy julli juróom nga di ko def di ko def ak churut yi maanaam ca laab ga ci suturaal sa awra ci waxtu wi nga di ko ci defee noonu gannaaw loolu nga wooral ko weeru koor moom itam ci lépp loo xam ne maanaam cër la bu nekk ci yow ni ngay xii woore ci lekk ak naan nga woore ko ci lépp loo xam ne yàlla da ko tere rekk doo ko def ci biir koor gi waaye itam bu dee yaa ngi liggéey yàlla li nga xam ne wërsëgal na la ko nga di ko ci jaamu mooy alal ji nga xam ne fàggu nga ko nga di ci génne ndax yàlla moo wax ne xuuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha yow yonent bi sallallahu alayhi wa jëlal ci seen alal ñoom jullit yi ab sarax boo xam ne moo leen di laabal ndax kuy génnee azaka soxor day génn ci yow iñaan dafay génn ci yow nay dafay génn ci yow te dangay bëgg di dimbalee ndax foo sañoon saa yoo at mi ngeen lu see rekk nga am lu ëpp li nga joxe woon ren kon ba pare nag muy sellal alal ji di ko sekkil di ko barkeel ci lan lañ koy génnee mu ne yaa ayuha alladina amanu anfiqu min tayibaati ma kasabtum wa mimma axrajna lakum min al ard yéen ñi ma gëm na ngeen di dépenser ci li teey ci li nga xam ne fàggu ngeen ko kon lépp loo xam ne da koo liggéey ci alal bu matee nisaab mooy quantité bi ñu wax ne lii kat ku ko matal war nga koy génnee azaka at mu ne alal jooju na ngeen ci génnee azaka ak li nga xam ne nag da ngeen koo bay mu génne ci suuf yitam nangeen ci génne azaka bu ngeen ko defee maanaam moo leen di sellal moo leen di laabal kon nga gis ne kon azaka ngoog lépp loo mën a defal yàlla weeru koor wax nañ la ko wax nañ la azaka mu des walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabila yàlla wax ne dogal na ci nit ñi day ñu aj néegam ba ci képp koo xam ne man na ko mooy man gi mooy nga am wér gi yaram gi am alal joo yóbbu ak joo fi bàyyil sa njaboot am waruwaay wu fa yóbbu am yitam nag yoon woo xam ne sécurité am na ca yii bu dajee nga nekkub julit da nga wara dem motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne kep ko xamne ne may na ko moyen yooyu ñu fi lim lepp neena ba pare mu lank baña dem aji neena kon dem manon na rek de nek yahud wala mu nek nasara manam dal manon na baña tudde bopam ab julit ndax julit bu yoyu dajé ci mom dafa wara dem ci aji neegu yalla bi nga gis kon ne yii la yàlla wax ne lépp loo ma defal maanaam rekk na la wóor ne bu dee jaamu nga ci jublu nga defal ma ko ci yii ma farataal ci yow moo ma gënal waaye nag mu wax ne samab jaam du dañ di ma jege-jegelu ndax mu ne wala yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafil xatta uhibbahu waaw mu ne sama jaam nag bi mu defee yii ma faratal ci moom mooy julli juróom woor weeru koor joxe azaka dem màkk ba pare nag di ma góor góorlu ci ay nawaafil mooy julli nga bañ a rem rekk ci ñaari ràkk ràkkay suba julli yu fajar tisbaar ba la ngay julli nga julli ñaar ràkk walla ñeent boo jullee tisbaar ba pare teg ci ñeent wala ñaar bala ngay julli tàkkusaan julli ñaar wala ñeent bala ngay julli gee boo jullee timis ba pare teg ci ñaar ñeent ba juróom-benn boo jullee gee teg ci lu mu néew néew fukki ràkk sax wala ñaar def safa ak wiitar guddi gi boo tëddee ba xaaju guddi léeg-léeg nga jóg ndax yàlla tatajaafaa junubuhum anil madaaja yaduuna rabbahum xawfan wa tamaan wa mimma razaqnaahum yunfiquun yàlla ma ngi doon tagg ñi nga xam ne mooy gaayam yu sell yu baax yi mu ne ñooñu dey bu guddi jotee dañ fanaan naan lalya lal taxaw di jullil borom bi tabaaraka di ko ñaan léeg ñu naagu lool ne bu kenn doon dem àjjana sax man lay doon waaye léeg-léeg ñu tiit ba jàpp ne man bu kenn doon dem safara xam naa man mii lay doon ndax rek xeeb la muy def waaw julli yooyu nga di ko def yu wuuteeg juróomi waxtu yi la yàlla sant nga won ko ne ko wax dëgg lii de nga ma sant waaye day sama cofeel ci yow sama ngëm ci yow ak xéewal gi ma defal wax dëgg day xeeb naa yii fukki ràkk ak juróom-ñaar waaye danaa la ci dollil nàngam nga gis ne koor yitam yonent bi nee na xadiisul qudsu la woor boo ma mën a wooral ak lu mu bari bari nga woor weeru kooram a ko gënal waaye nag boo wooree weeru koor ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa digaloon na saxaaba bi Muaaz mu wax ne sama soppe ba digaloon na ma dey may woor ñetti fan ci weer wu ne maanaam ñenn ñi ne ayamul bit la muy le 13 14 15 ci weer wu ne ci weeru olof yi nga woor yonent bi ne ka mi dahri képp ku ko saxoo na la wóor ne da ngay am tiyaabay koo xam du dog koor ndax alxasanatu bi ashri amthaliha la yàlla wax nee na ku def benn bu baax fukk laa la koy fay comme weer nga def ci 3 jours ça fait 30 jours at mi kon jàppal ne am nga tiyaabay ku woor at mépp léeg-léeg nga tànn altine walla alximis ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnaam bokk na ci woor altine ñu laaj ko lu tax mu ne parce que ci laa juddu alxamis mu ne ci la ñuy indil jëf yépp ci yàlla nee na bu boobaa nag ma bëgg man buñ may yóbbul samay jëf ci yàlla fekk maa ngi woor moo tax yonent bi sallallahu alayhi wax na ne bu alxamis bu nekk danañ ko ñëw andil mboolem kuy ab jullit rek dossier mu xool bu xooleek ñi nga xam ne ñépp dañoo def lu baax mu félicité leen ñaanal leen yàlla ñu saxal leen ci nee na ñi nga xam ne dañoo def ay erreur mu jéggalu leen yàlla ngir yàlla jéggal leen mu ne ba mu des ñaari jullit yoo xam ne dañoo non ku ci romb sa morom dangay ngay dummóoyu bu la nuyoo doo ko fay nee na ñooñu moom bu ma leen bëggee jéggulu yàlla ne xatta yastaliha bàyyil ba ñu juboo duma leen baal mukk bu leen jéggulul tànk juboowuñ nga gis ne kon ñaari jullit yu noonoo erreur la ndax bu yàlla jéggal bu yonent bi jéggulu te bu kum jéggulul yàlla jéggal la yow doo ca bokk maanaam azaka xam nga xuus min amwaalihim boobu yàlla dafa wax ne na nga jël ci seen alal loo xam ne dañ koy jël jox ko ñi nga xam ne yàlla moo lim ne ñii ñoom yelloo nañ azaka loolu moom ñoo ko moom ci seen alal la boo leen ko xañee nag na la wér ne a ëllëg da nga ko layoog borom bi tabaaraka wa ndax nee na ëllëg xaal loo alal jooju danañ ko def ay fer à repasser yu safara di la ko ñaas moo tax waaye nag moom itam boo génnee sa azaka ba pare yàlla may la sa wërsëg yaatu mën nga cee génnee azak ay sarax sarax nag yonent bi sallallahu alayhi wa nee na dafay seral merum yàlla maanaam yàlla dana mere ab jàmm mu génnee sarax loolu bëpp mer ma fay mer ma te nee na bis boobu nga xam ne ker du fa am lu dul keru yàlla gi nee na yàlla dana keral ñi nga xam ne dañuy sarxe te sarxe itam dana fanq musiba ak balaa te loolu lépp bokk na ci naafi la azaka xam ngeen ne aj yàlla moo ko faratal ci bépp jullit bu ko man mu wax ne aj gu ñu nangu moom dara du fayam lu dul àjjana nee képp ko aj caaxaanoo fa fowoo fa chaklaruf defo lu yàlla tere néna na la wor ne bo paré melal mel nga ne bis bi la sa way jur wu jigen ëndé ci aduna nga gis ne kon ab julit gannaaw bi nga xamante ne wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci dess loolu ci xol lay nekk nit mënu cee teg bëtam waaye nag ñun li ñuy mën a wama shahidna illa bi ma alim naa ndax ashadu an la ilaha ashadu anna muhammad rasulullah ku ko xas ba wax rek mën a tu sañatoo koo wax dara ndax ci xol la ne waaye nag ñun li ñu mën a juger mooy az zawahir mooy li feeñ mooy ab jullit force ñu koy gis muy julli julli juróom ñu d'accord ne lam waxoon ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñun li tax ñu mën koo gëm mooy day julli julli juróom di woor weeru koor di joxe azaka di dem màkka bu ko manee bu boobaa nag yàlla ne du sañati ab jullit sañatul maanaam di ko defati dara ndax da ko war a jàpp ne ci lislaam la bokk yooyu nag boo ko dee def ba pare nag di jege-jegelu yàlla ci ay nawaafil julli guddi woor jour yooyu ñu fi wax wala yeneen wala saw mu daawuda ak di joxe li la yàlla wër sëgal nga di ci génnee di dimbale jaamu yàlla yi yàlla ne mathalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah ka mathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wallahu yudaa'if liman yasha mu ne ñooñu nga xam ne dañuy jël seen alal di ko jox nit ñi ndànk kenn du yëg te yàlla rek tax nee na ñooñu daal ma ngi mel ne ku jëloon benn fepp dugub jëmbat ko ci suuf mu génneel la juróom-ñaari gub gub bu nekk jox la cent pepp téeméeri pepp te yàlla nee na sax loolu dama la ko jox exemple waaye lu ma neex laa la koy multiplier man nga joxe un mu defal la ko sept mille mais nee na sept cent daal moom danaa la ko defal léeg-léeg mu defal la sept mille léeg-léeg mu defal la sept million sax bu ko neexee ndax ma ngi yéene ji nga koy defee ak sellal gi nga koy defee ak bëgg ci ngërëmal yàlla moom mooy tax yonent bi na nag jaam boobu nga xam ne dafa def li ko yàlla faratal ba pare di ko jéem a wut lu ko neex di ko jaamoo ci yeneen yum koy defal yu ko yàlla santul mu def ko rek te tawwo nee na ba ma sopp ko nee na bu ma ko soppee may nekk ay bëtam duutul xool lu dul loo xam ne da cay jële tiyaaba nekk ay noppam duutul déglu lu dul loo xam ne da cay jële tiyaaba may nekk ay loxoom duutul laal wala mu liggéey walla mu nangu wala mu joxe lu dul loo xam ne daf ciy am ngërëmal yàlla may nekk ay tànkam ba duutul dox lu loo xam ne daf ciy am ngërëmal yàlla di ci am payug yàlla nee na itam bu àggee foofu xam nga kooku jeex na tàkk ci yàlla moom la ñuy tudde waliyullah inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun yàlla ne ñooñu nga xam ne nag dem nañ ba ma soppal leen sama bopp ba mënatuñoo def lu ma naqari nee na ñooñu laa xawfun alayhim amul lenn lu ñuy ragalati wala hum yaxzanuun du ci àdduna ci tu àllaaxira nee na la la in saalani bu ma ñaanee kooku jaam boobu nga xam ne daf maa jege-jege lu ci ay naafila bu ma bëgg ko nee na bu ma ñaanee ma may ko ci saasi lépp lu mu bañ mus lu ma ci ma musal ko ci saasi loolu ku ko bëgg a am doo yem rekk ci farata yi dangay def li yàlla farataal ci yow ba pare di ko góor góorlu nag ci ay nawaafil ndax nawaafil julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi wax ne rakaataani fi jawfi layl xayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaari rakka yo bàyyi ba suuf sedd neena nga julli ko mo gën aduna ak li ci biram xam nga nga tëdd ba guddii jóg ne ñokket nit ñi di nelaw nga julli ñaari rakka yonent bi neena mo gën aduna ak li ci bir mune man sama yawman fi sabilillah azza wa jalla zahzaha allah wajhahu عن النار بذلك اليوم سبعين خريفا نينا كيب كو خامني داغا وور رك بن بيس دم نصف شعبان ولا عاشورا تم خريط ولا بوك يوم عرفه نينا تا يالا رك تخ لنين تخول نينا يالا دا نا جيل سا كانم جي سوري لا سفرا لو خامني بو دون داو جوروم نيار فوكي ات 70 ans nee na doo ko atteindre ci benn bis rekk boo wooral waa kooku kuy def saw mu daawuda nga xam ne weer wu ne nga woor ci fukki fan ak juróom walla nga def ay thalathata yam yi yonent bi wax muy ñetti fan kon lan mooy sa pay ngay julli guddi lu ëpp ñaari ràkk di woor ci weer yàlla lim la wërsëgal nga di ci dimbali jaam yi te itam dem màkk doo ci yam léeg-léeg juróomi at yu ne nga dem boo mënee umra nga dem lii ku koy def ci ngay amee nag àgg ci inna awliya allah bi allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min azulumat ila nuur ñooñu ay allié yàlla lañ moo leen di génnee ci lépp loo xam ne lëndam la lépp loo xam ne lu naqari yàlla la yóbbu leen ci lépp loo xam ne lu neex yàlla la bu ko defé ñu nekk xarit yalla bu bëggé yalla bëgg buñu bañé yalla bañ yalla nañ ci yalla boole bu ko defé kon ñu xamné ne wer nak ngi nii di di shahru ramadan al mubarak ci fan jamono yi ngay commencé entraîner sa bop ci fexé ba sa nga tiyé ko sa tank nga tiyé ko yar ko sa bëtt yar sa biir ba too def bu weeru koor ñëwee fekk tàmm nga ko di julli guddi di julli ba cëg ba bu weeru koor ñëwee mu yomb ci yow maanaam lépp loo xam ne jël am nga ko nga ji ci dimbali jaamu yàlla yi nga xam ne ëllëg weeru koor dafay ñëw fekk yow ci nga xamee nga ne xiif ak mar lu metti la te am na ñoo xam ne ci xiif lañ dëkke nga di leen commencé di leen dimbali fii sabilillah ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne da nga fekk rek ku wor nga jël ndoku jox ko mo xam 1000 francs la bo amul 1000 nga am sa ben bitéelu boko amul même ben ndox wala tandarma nga jox ko ko te yalla rek tax neena am nga tiyabay lu tol ne le mo am ci journée ba te du wañi ci bisam dara bu ko defé kon yeen mbokk yi ñu xam ne daal yàlla wax nañu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa li doon man dara taxul ma bind leen lu dul ngeen jaamu ma kon nag nañ xam ne lépp lu ñuy def ci àdduna mën nañoo fexe ba mu nekk ak jaamu yàlla maanaam suñu liggéey buñ ko sellalee te mu nekk lu dagan ñu di ci def ngir man cee sàmm suñ ngor ak suñ diine day nekk jaamu yàlla lépp lu ñuy def ci àdduna ñu tek ko ci cadre bo xamne dal day deppok li yàlla bëgg bu ko defé suñu dund gépp fay nekk jaamu yàlla te bu ëllëgé nak ila aynal masir fofu lañ ko xamé ndax yàlla neena innal abraara la fi naim wa innal fujjaara la fi jahim ëllëk ñi nga xamne dañoo baax nekk ci lima bëgg santane bàyyi lima tere day ëllëk la fi naim xéewal rek waaye ñi nga xam ne lu leen neex def lu leen neex wax li ma santaane seen yónnewu ci li ma tere seen yónnewu ci lu leen neex lañ koy defee ak koo mën a doon la fi jaxim safara rek nga jëm yàlla nañ ci yàlla musal kon yàlla nañ yàlla defal dégg ak topp di nuyu mboole mushaahidoon yi ñi nga xam ne ñu ngi seetaan suñu émission bi ci Safina TV di nuyu suñu sëriñ Thierno Hamidou Yoroban suñu sëriñ ca sëriñ Mor Diop ca Parcelles Assainies ak suñu waa daara Anne Marie Seck daara yépp nag di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu suñu technicien sàmba si suñu degré directrice soxna Ñuma Ba madame gande di nuyu mboolem ñuy liggéeye ci rajo bi ak ci télévision bi seen mbokk seen xarit imam Aboubacar Mbodj moo leen di nuyu di leen ziar di ñaan borom bi tabaaraka taala yal nañ yàlla may ñu teewe weeru koor may ñu kattan guñ ko woore te may ñu kattanuk lépp lum ci santaane ñu taxaw ci lum ci tere ñu bàyyi ko te nangul ñu ko teñ woor ko ay at yu bari yal nañ yàlla musal ci musiba yi ak balaa yi ak feebar yi aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iri almuslimin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته